et je dis président monsieur le maire ça c'est nous. Ce bi nga xam parce que ont tout fait pour Rufisque particulièrement pour Rufisque Ouest ba combat que nous avons en 2024 combat c'est le combat de la jeunesse c'est le combat des femmes on doit se réunir pour que Linga nga xam la victoire au premier tour la victoire au premier tour nous am que ñëw Nous seen loxo. nañu def ay équipe sillonner le terrain dugg ci nit ñi dox mbokk yi dem parrainer len. mu nek affaire bu parce que président Macky Sall fait won mu bi pour la continuité j'ai choisi le président Amadou pour la continuité j'ai choisi quelqu'un qui xam Dans doo leen ko toppee fi nga xam ne foofu bëgg égaler Sénégal moom dina ko fa eggale ñu Souleymane Souleymane avec Amadou on parraine ñu walaaj monsieur le maire Alunmar. Mar mu ne avec Amadou on parraine et Rufisque Ouest dit oui pour le parrainage de Amadouba. Ba ñun jeunes yi Mbatas et j'en passe venez on doit montrer à la jeunesse nationale que Rufus Ouest s'est tenu en un seul bloc pour donner la victoire au président Amadouba.

ñun yéen la ñuy déglu parce que ku am ay kilifa yu mel nii ñu toog li nga xam ne moom lañ ñu sas ñu jéem ba def au delà ñoom li ñuy yaakaar si ñun. défi laay lancé góor ñi nekk fii góor ñi nekk ci commune du Rufisque Ouest défi laa leen di lancé dama bëgg ñu xam ne tey jii ñoom bu fekkee dañoo yéexantu tuuti jigéen ñi dinañ dajale parrainage yi parrainage ñu candidat bi nga xam ne mooy Amadou Ba ku fi jóg ku ne. ña nga nekkal ñoom ñoo lay tëngoom nga dem te bu fekkee ne am na ku gën a placé si bunt bi pour jàll ban jariñ la am nit ñi di buuxante ak moom di ngeen buuxante kenn du jàll te seen tànk yi dina damm dama ne ñi nga xam ne ñoo fi nekk nekk suñu ay leader nekk suñu ay responsable exemple bi ñuy wane nii toog fii ak waa kër Ismaïla Madior Matar Ndoye Ndiéwène exemple bi ñuy wane nii dama bëgg mu reflété wu ci terrain bi man de dama naan buñ la sasoon sa commune 5000 war ngaa lu nga indi 8000 ñu xam ne yow mi jàmbaar nga